E, di jaale kii nga xam ne e, mooy njiiti réew mi e, ñu ngi ko jaal kii nga xam ne moo nekkoon suñ boos bi di alxaaji Moodu Saañang ñu ngi koy jaal njiiti réew mi di ko jaal kii nga xam ne mooy vice président di ko jaal cabinet ministres yëpp di ko jaal waa Gambia yëpp di ko jaal itam waa GRTS yëpp Eh, e ci kaw be si suuf tàmbale conseil directeur général di alhaji lamin manga député directeur e alhaji malik jones be ci ku mujjee e fii ci biir kër gi comme niñ ko ni ngeen ko waxee rek waaye wala sax niñ koy waxee depuis si subaag léegi alhaji modou sañan nekkoon na nit koo xam ne ku suufeel boppaam la ku bugal liggéeyam ku xam liggéeyam ku respect itam ñi ko féetee ci suuf dégg naa ci suba Ramatulaay di wax ne eh, daf daan wax nit ñi ne maay star ba ci moom daf ko daan wax ne maay star ma man bi ma nekkee suma néeg ma naan eh, yow sa bos nga xam waaye man suma boo daf ma daan wax ne ma man yaay suma xarit ñëpp waay sax yow yow mm-hmm. eh, séeréer nga man may joolaa bañ na ko ba lu soxla woon ci luñ ko war a jëndali ci ay bitik ay supermarket man lay yóoni mhm. ma dem jëlali ko lu soxla rek na ma kool ne ma ma ne fan nga nekk ma ne ko maa ngi fi mu ne ma ñëwal nga fekk ma suma office eh, muy ku wàccee boppam office am la ñëpp di toog office am la ñëpp di waxtaanee office am la ñuy añee fa lañuy ñuy reeree fa la ñuy ndékkee eh, muy ku baax eh, ñu koy ñaanal rek fam dem eh, yal na ko gënal fii nga xam ne fii la jógee eh, ay saxam ay yaxam seeda si suuf eh, di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne moom moom moom jannatul firdaws yal na ko fa yóbbu comme niñ ko waxoon rek di ko jaale waat ñëpp benn tam di ñaan rek ñi fi des te xam ne lii moom demal maa ngi ñëw la. yàlla su ko rek waaw yéen ku nekk. xam la war te di ko def eh, ñu jàppante manko eh, nekk ci suñu liggéey comme nim ñu waree waaw jërëjëf jërëjëf ah, Mor Lamine Mor Lamine Diouf ah, dafa am baaji Saudi ah, ñi nga xam ne dañ koor ñoom ñu ngi wone seen tiis Ah, mu ne ma àggee ko ak Essa Diallo tam mu ngi Angleterre mu ne ma barki dimba rek la fi jógee ko xalaatu doon ne su demee suy dem Angleterre balaa moo éega nañ ko wax ne Alaaji Modou Sanyang gaañu na mm-hmm. kon nag ah, ñoom yëpp ngi jaale di leen wax ne jërë ngeen jëf waaw ah, ci kanam tuuti rek eh, comme ni ma ko waxee rek eh, eh, Fatou Diop na fi war a ñëw moom itamit joxe kàddoom joxe seedeem ci Alaaji Modou Sanyang waaye nag balaa Fatou Diop di egg si am nañ fi kenn koo xam ne mu ngi bokk ci suñ eh, driver yi eh, di Mahfouj Eh, bon nag maa fuuji ñu jox la kàddu gi jammuɗo laalde mi yalan ko motsañani mo beele teriya sotonum mhm. ah, dow ko keña to dow ko ña ñima kan anin fanan kanumteya min soto moole o kammala kabo manéjal to kata fo drivel to kata fo clinasol to mhm. aka mo be ku keñoya ah, o mhm. saabu kammala anin dol min dalte kono e commande pronal alnise kaca Euh, alsi fanna kumo moy be min fula mota yana kodo ngamin soto jang wale mu ma fujiti ma ma fuji baro ate mu drive de mi alon euh, mm-hmm. ko uh, mosa yana mu wale aka barande bake mm -hmm. anda fon ka fa do bijan sa ga fa ko ite dun fe sila mosa yana alba mm -hmm. sa fanya hani hormoni bunya ka mintili na wala katina mm -hmm. fanan buga hani pro mm mm-hmm. koto mm -hmm. uh, kamala da fon fen tijan si ko diala afana min lon jiya so before kata ni kuya min di banko pe dunia pe because mo mo le mi lon ko mo bete bale mu ay mo be mutala terol le te amam moto koma ngani o fana seneyata wo kan mm-hmm. anyway ni toro min na wala mu ŋa e ye wala mu alasa dunde arijano kono aye bala fa soto aye ayen tol min fana to jang alama nasiyol la fala mm. alama famala ni nyongo fana la mm. ya rabbi ha se gambian kol be tentu nge jayi mm-hmm. se bankutiyo fana tentu nga jayi mm-hmm. ntala diamo mon jampa wala mu alama banko sumi ala kan okay. yes. uh, barka bake ma fo jukumu bejata a ah, mo fana mo fana be jamiya lon ko alhamdulillah ah, fana mo tayan ku kenyo la min keda ah, mo jaloti ate ah, ɓe newsroom le bari alhamdulillah anin moussa wade soto international ah, ñola jang moussa yan kantol be fe alhamdulillah rabbil alamin afana min lon ja sofa mo jar bismillah ah, aboubacar baraka bake mamande kama moy bake bari ngamira ma fola mm-hmm. sura kangoro ake amboke aboubacar mang la tintini mm-hmm. sa kadu gi mm-hmm. te besi naxaar waa tey bési tiis la mhm. kon sa soo ko bàyyi xel euh, di ji depuis buñ fi ñëwee ñoo fi ñëwaan door benn at mhm. buñ fi ñëwee foos buñ fi ñëwee dañu introduce ak boom mhm. ah wax nañu wax yu bëri soo fàttale ko dafa ñu wane waaw mu welcome ñu wax ñu si office am naan ñu waaw ñëw ngeen si place te xam nga li lañ fi indi mooy liggéey te moom liggéey la gëm loolu la liggéey rek té buñ fi ñëwé tamit daf ñu jàppa comme ni domam waaw surtout man nga nga diggante pël ak ah lefin bu nekk suñu diganté kal bu nekk suñu diganté saa yu nekk daf ma daa ne suma pëlee suma pëlee su jëwé légui légui suñu duggé ci office suma gisé rek ané daf ma dé xor rek ana suma pël bi mbaa nga wala ba añ nga waaw mhm. suma ko né dédé rek next thing moy né mu jox la waaw mu jox ma jox ma dama nga jëne ndéw légui légui dafa am lekka nga xamné ne am añam wala wala ndéwoom sax ay mu ekkati jox ma ko. Mhm. waaw mu ne. donc man tamit euh, ñëpp dañ cee dem si affaire digg yi di fa añee. waaw euh, loolu itam wane ñëpp ah, <laughs> dee oo. Mhm. daf daf toppa di la oo daf la dee kool kool la kool soo ñëwut sax daf ko jaral mu. mu waaw mu ñoom mhm. soo lekku mu dajale staff yëpp. mooy pour xam nga woon ne moom. ñu yëpp daf ñu émalé amul amul dafa dafa dafa gënale kii wala gënale kële ñu yëpp la émalé ñu yëpp la téye comme doomam. Mm-hmm. te liggéey moo ñu fi boole ñu yëpp benn famille lañ. su toogee benn fan ñaari fan gisul la foo mu koo la. Mm-hmm. ah mu jàll te gisuma la lu xew. Mm-hmm. foo nekk ah ñëwuloo liggéey wala di ak di ak nii. yoo xam nga ba pare nag loolu taxut non ñeme ñoonu boppam waaye taxut tamit liggéey bi du de compromise. waaw dafa am soo time jotee first thing in the morning ndaa ndaa ku nekk ñëw na sa liggéey soo ñëw nga gis mu kool la ah foo nekk xanaa tey doo ñëw liggéey nii ak nii ak nii. Mhm. soo déggee léegi gis mu yuuxu sa kaw waaye loolu taxut. Mhm. next minute nga gis mu ñëw rek neexal la. Mhm. loolu lu mu firnde mooy ne xam nga ñu yëpp benn famille leen te. dëgg dëgg man xam nga nekkal na ma am euh, very sad. am eh, very eh, la jërëjëf Massa eh, Modou Diallo liñ bokka ñu jox nag Samsidine moom itamit caméraman la fi. mu jox li nga xam ne moom la seedeel ndem si yàlla si inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ayda ayda nte kiide baata janne because ni ajen kon kiideta diji diji aka bata ka bi ka jibe kon tala ka sarale nara jan do kol bul ka sarale soro diji anya tano ina akam tulanta malun la janda de mm-hmm. bara ka ken samanya ya sanaw yalla safne sanaw la mite mm-hmm. kana kam fanga ma hako bondi ne za bay nga hako bondi ya mm-hmm. ba mor sanya mol ti mi ko ala khodin ta ala khoditi diji ni mol ka bot rek la kanin lay ay da mo be tar sirin 25 25 25 fa la ko do ban fereng billahi wallahi tallahi mo je mo ala fenta ala fenti na wurta i e mm-hmm. a ka fenna fenta kono amman mm-hmm. ganin sota sondomo kono nin ñatonkol be bota modu sañana mm-hmm. no gambia ba diyala bakele ayda aba fenta la fenti alma alay e yomfandi yomfakay e. alma ala dimbayalu alma alay itanka setan nañ ala baraka ala baraka shamsidin abarka bake law kumol euh mo sañang tol be yalon kumole mi yalon ko ala fenta la fenti ko shamsidin ya ko euh slan dong min de wala ñinti ko ay jiko nyimal min soto nga fere ke nga ngeni bawo betiyani nafa bala mkani kani wasabu kamara mol be jam mi yalon ko mo sañang kukeñol le moyti na stable be jang mulun tawdi mamira wona ku pat fon mhm. ah, ah, ko nyokan mhm. bare sawana be jang ah, wo wona meta nyokan bake ngamira fani tara sawana la office ko ne kan dal baji je mota yana talo na sawana fon lan talo mhm. o kammala mbira fla sawana na e ase kuma nim fa mil long sa yana ko